bisimilah. dal ak jàmm ñu dikk ak yéen ci li gën a fës l'observateur yéenikaay la koy dooree mi xëy dikkaat ci li nga xam te moo ñeel wàllum reddition des comptes ak les détails de l'audition de l'homme d'affaires Abdoulaye Sylla face à face am ak waa dikk ñu ne nag loolee daal di ñuy durer lu fukki waxtu la nga xam te la ñu ko doon laaj nag mu ngi doon jëm ci wàllum lingot door yoo xam te moom jàpp nañ ni génn woon na ko ci biir réew mi te bees xaymaa ay milliards yu bëree bëri la l'avion bi nga xam te ni moo transporté lingot d'or yi ak date de référence boobu loolu lépp l'observateur yéenikaay na ko niki tey ji version homme d'affaires bi waaye tamit daal dinañ koy bàyyi convoqué waat ko ngir mu dellu si waat l'observateur yéeni kaay nañu laat jóob bi tamit daal dinañ koy convoqué niki gaaw gi xam te moom la nekk ngir moom tamit déglu ko ci yeneen i mbir yoo xam te jàpp nañ ne laale na ci journal bi dikkaat na ci ci mu gën a yaatoo ci lu ñeel wàllum politique yi tamit ak législatif yi leadership ak avenir ñu nekk le PDS le tournant décisif ci yi lay jongante le parti bi xam te moom di lépp loo xam te ñeel na avenir am yëral journal bi di l'observateur yéeni kaay en relief quotidien nañu compagnie aérienne africaine une rentabilité famélique journal bi xëy na def jàngat ci li nga xam te moo ñeel yenn compagnie aérienne yi ci biir réewum Sénégal mu ne saint renforcement de capacité des communautés la transparence budgétaire et la redevabilité au menu journal bi def na ci jàngat bu yaatu yaatu enquête quotidien nañu nag dossier tatouage et piercing une génération grave li nga xam te ni daanaka ndaw ñu bëree bëri dañu koy def jëmu jële seen i bakkan wala nag seen yeneen i cër yaram maanaam daal di koy tatoué loolee bokk na ci li xam jàpp nañ ne tendance la jamono jile te ndaw ñu bëri di ko def Dakar Express nañu tamit la reddition des comptes la traque passe en mode turbo Lat Diop convoqué à la DIC ce samedi waaye tamit d'autres dossiers confiés à la section de recherche en cours de finalisation bëri na ci ay dossiers yoo xam te ni jox nañ ko way takk der yi fi mu toll nii ngir nag ñu daal di seeni borom daanaka na ñu tàmbali li nga xam te ni moom moo nekk audition législative anticipée où l'opposition joue contre la

ki tey ji ci gaaw gi la war a dem wuy ji l'enquêtekat yi ñu ne nag lu ñeel wàllum reddition des comptes boobee daal moom Lat Diop nag moom moo nar a ubbi mbir yi journal bi tamit xëy na wax ñoo mu ne nouvelle nuit de Jérôme Bandiaky passé entre la main de la DIC mu ne ce l'on lancé ana lan xam te xam te mooy guddi googe nga xam te ni Jérôme Bandiaky daal dina koy fanaan foofee nga xam te mu di ci dikk ci loxoy takk dari journal bi dikkaat na a kilo d'or sorti du Sénégal par jet privé luy xam te ko ci ni moo di Abdoulaye Sylla na ci mbir moomu leen ndax am na benn manifeste de vol ak benn xam te la ko daal def te l'enquête kat yi ñu ngi ak moom gannaaw ba nga xam te bàyyi nañu ko woowaat ko ci wàllum audition dañu naka sib soné ni moom mooy ki nga xam te moom moo transporté boobule or waaye tamit moom moo ko génn ci biir réewum Sénégal Sénégal te lu ni mel nag def ci ànd ak ki nga xam te moo fi nekkoon jiitu réew di président Macky Sall libération yéeni kaay xëy na dikkaat ci mbir moomale waaye tamit mu ne ki nga xam te moom moo di Lat Diop daal dinañ koy convoqué la ñu ko bëgg a dégloo jamono waaye tamit beneen ba nga xam te moom mooy ñaareelu dossier bi nga xam te tax nañu woo ko moom Lat Diop mooy nag doxalin nga xam te ni amaloon na ko ci biir réewum Sénégal ak la ñu ko dénkoon ci nguuru Macky Sall tribune yéeni kaay moom itamit xëy wax

ki nga xam te moo lu ñeel wàllum déguerpissement moom nag la ñu nar a tàmbali ci li nga xam te moom moo di ci mbeddi Sénégal yi ndax fi mu toll nii jëwriñ ji lu jëm ci wàllum biir réew wàllum tolérance daal bëggatu ci dara la mu bëgg nag mooy lépp jub xocc ci mbedd waaye tamit lépp leer naa ñi képp ko xam yaa ngi ciy def naka sudul noonu ñu daal jàmm jàmmaarloo ak moom i tamit xëy na dikkaat ci li nga xam te ni moo ñeel wàllum législative yi mu leen nar a nag mooy la nga xam ni daanaka ñoom euh, yàgguñu ci nguur waaye tamit politique daal dese nañu ko tàmm ñu ci bëri dañoo amee égo ñoom i tamit dañuy double jeu ak li nga xam nekk wàllum représentativité bokk na yi tamit ci la nga journal bi xëy na fësal ko tey mu ne li nga xam moo war a nekk ay gàllankooru ñi nga xam te ñoo di ku jëkk politique yi journal bi daal di fësal ci xët bu njëkk nataalu Amadou Ba Khalifa Ababacar Sall Anta Babacar Ngom ak Aly Ngouille Ndiaye ana moo war a nekk chance ñoo xam te ñoom ñoo nekk ci ku dëkk bi dikkaat na ci antenne quotidien moom xëy na dikkaat ci li nga xam te moo ñal wàllum reddition des comptes Lat Diop ouvre le bal ala dikk ni ji nag moom moo nar a tàmbali mbir moomule moom Lat Diop ndax nag wóolu nañ ko fa nga xam te ni moom moo di ca dikk danañu ko laaj ci ay dossiers yoo xam te ñeel na wàllum lonage ak na nga xam te noonu la fa nekkoon journal bi dikkaat pour les législatives mu la main au parti ki nga xam te moo di nguur gi daal fi mu toll nii mu ngay tàllal yi ndax nag jëwriñ joor lu jëm ci wàllum biir réew mi dana dalal ni ki gaaw gi nga xam te moom la ñu nekk parti politique yi ak ñi nga xam te ñoom ñëpp war nañu dugal seen yokk ci li nga xam te moo ñeel wàllum élection législative yooyu yooyu ngir déglu leen seen xalaat waaye tamit waxtaan ak ñoom ci mbir mu ni mel l'éveil quotidien moom xëy wax ci lu jëm ci wàllu mbéy mi mu ne rendement agricole Mabouba Diagne encourage les pratiques améliorées ñi nga xam ñoom ñoo ciy yëngatu nag ki nga moo di jëriñ ci yor lu mi mu ngi leen di gën ñaax ngir nag ñu gën ànd ak pastif ci li nga xam moom moo di mbéy mi waaye tamit jëmtuwaay yu yees yi nga xam ñu ngi koy jëfandikoo jamono jilee

wàllum reddition de compte le nañu mode d'emploi les liens entre l'OFNAC et le financier Lat Diop la DIC aujourd'hui li nga xam te mooy li dox ci diggante OFNAC ak parquet financier bi ak Lat Diop mi nga xam te moom mara tarambali mbir moomu la tey jile journal bi noonee la ko xam ne le Dakar waay yéenikaay koy wax ci li nga xam te mooñeer cherté du code total des empreintes mu ne hausse de zéro prix du crédit bancaire au Sénégal la nga xamante moom ngay fay boo libee ci banque yi daal di nay yokk journal bi xëy na def ci ab jàngat bu yaatu yaatu le public yéeni kaay nañu nag le plan Orsec de Serigne Mountakha Mbacké ki nga xam moo di xalif général des mourides fi mu toll nii nag moom bëgg naa nga xam moo di ca dëkk bu sell ba di Touba Mbacké nga xam te daanaka fan yi nii ndox mi daf ko nangoo ndax nag dafa taw taw yu mitti ak ay loraange nga xam ndox ma def na ko fa journal bi dikkaat na ci ci na mu gën a yaatu l'évidence quotidien xëy moom itamit dikkaat ci li nga xam te danañu fas yéene tàmbali déglu nga xam ni bokkoon nañ ci nguurug Macky ñu dénkoon leen mbir te ñu jàpp ne am na doxalin gu sellul goo xam ni am na ci yooyu l'info quotidien nañu nag dynamique unitaire en perspective des législatives l'opposition reprend du poil de la bête nga xam ñoom ñoo di ku jëkk gi fi mu tolli tàmbali nañu li nga xam moom moo di liggéey bi ngir xool na nga xam noonee la ñuy ci lu ñeel wàllum jongante yi nga xam ku jëkk politique gi jamono ji lee ngir jàmmaarloo ak nguur gi rawatina waa Pastef ngir naka naka la ñuy def ba daal di leen ëpp ay député foofee nga xam te moom moo di ca assemblée nationale ba réew mi quotidien moom moo ñu wax ci li nga xam te moo ñeel wàllum dépôt des listes candidatures pour les législatives mu ne l'opposition dix jours chrono fukki fan rek lii di ku jëkk politique gi am ngir nag daal di defar ay liste ngir déposé ko Abdoulaye Mbaye dénonce les magouilles de Pastef la xam te moom moo nekk tey ji doxalinu Pastef ci élection yooyu le moom la Abdoulaye Mbaye di ñaaw kaay moom itamit xëy def ab lanket ci li nga xam te moo implantation de pharmacie et vente de médicaments à Touba ay pharmacie ak jaayum garab moo xam jaarul yoon ndax nag fa nga xam fa la ñu a jaar jaaruñu fa le mode d'emploi des officiers ñi nga xam ñoom ñooy defal lu mel mu ne nag ñii di pharmaciens yi daanaka ñoom ñooy faat li nga xam te liggéeyum pharmacie ci biir réewum Sénégal trois cent dépôts recensés quatre-vingts dëkk boobee di Touba te nag téeméer boo ca jël juróom-ñett fukk yëpp amuñu sañ-sañu jaay li nga xam te ni moom moo di garab yooyu le le défaut de conservation et le danger pour la santé li nga xam te ni moo ñeel na nga xam noonu la ñuy dencee garab yi loolee dara jaaru ci yonte te mu lu ni mel mën na indi loraange ci wér gi yaramu nit ñi marché occas les moodu moodu et les bawal bawal la nga xam te ni moom moo nekk seen taxawaay ci mbir moomu le soleil yéenikaay ñëw wax ci lu jëm ci wàllum napp gi ak la nga xam te moom la ñuy jëfandikoo mbaal mi nga xam te moom la ñu duppee monofilament mu ne nag les pêche dans la discorde nappkat yi di jëfandikoo googule ko ambaal te jaarul yoon ba tax nag journal bi xëy def ci ab jàngat niki tey jëlee quotidien la koy dooree mi xëy di wax ci lu ñeel wàllum contre-performance supposée des recouvrements de l'État selon les FMI mu ne la démenti par les recettes exceptionnelles de la DGID les hommes de Abdoulaye Dièye ñoom nag amoon nañ lu toll ci milliards yoo xam te jot nañ ko recouvrer ci fin août waaye tamit yaakaaru fondé enquête yéenikaay moom itamit xëy di wax ci wàllum crise de l'endettement mun la Sénégal face à la tyrannie du FMI fi mu toll yi nag FMI mooy jaay doole réewum Sénégal ci lu ñeel wàllum endettement mun la Sénégal est confronté à une dette écrasante limitant sa capacité à s'affranchir des bailleurs internationaux bor bi nga xam te réewum Sénégal amee na ko jéggi na dayoo lool jamono ji la waaye itamit lu ñeel renégociation contrat ci wàllum pétrole ak gaz la nga xam te ni jamono jile moo ko yéexal daal yi nga xam te dafa mel ni ñuy chantage réewum Sénégal démb Moussa Dembélé na la nga xam te ne daal dina koy xamle daal mooy dañu war a woon ginnaaw FMI mi nga xam ni fi mu toll na yoon wa nga xam bëgg na ci teg Sénégal jëmul kanam les échos moom tamit xëy wax ci li nga xam te moo ñeel wàllum politique mu ne putsch électoral du pouvoir Pastef l'opposition se gonfle et engage le combat ñi nga xam te ñoom ñu nekk ci ku jëkk gi jamono ji la nekk fasile fippu plus et mouvement kuréel googe nga xam te samp nañu ko démb daal dinay jóge ci juróom-ñaar fukk dem ci téeméer ak fukk ci ay parti politique ak i mouvement yoo xam ñoom ñëpp ci kujje gi la nekk jàmmaarloo ak nguur gi ci jongante législative yi nga xam moom la ñu dëgmal loolee moo seenu xemamteef noonee la ko législative ses autres adversaires de Pastef yeneen adversaires yoo xamante ni parti Pastef daal dina koy am na ci coalition Khalifa mobilise contre Sonko Khalifa Ababacar Sall jamono ji ne nag mu ngi boole ku jëkk politique gi ñoom ñëpp ngir ñu daal di àndandoo doon wenn say daal di jàmmaarloog Ousmane Sonko jàmmaarloog waa Pastef ak ñi xam te ñoom ñoo fare ci coalition Diomaye président ngir nag euh, daal leen daan ci élection législative yi xam te ni moom la ñu dëgmal Khalifa Ababacar Sall Anta Ababacar Ngom Abdou Mbow ak seeni naataango noonee la bëgg a doxale noonee les raisons de l'attaque de Pastef et l'exigence de renouveau waaye tamit menace pour le pouvoir les conséquences son image ki nga xam te ni moo di Amadou Ba doole ji nga xam te taxawee na ko jamono ji le nag nekk ko ci ku jëkk politique yi ba tax na waa Pastef di ko attaqué di ko song jamono ji ku jóg xam dara moom nga koy ŋaññi waaye tamit la nga xam te ni moom moo nekk liy xaar Amadou Ba ci yooyu lay jongante yëpp l'observateur yéen i kaay na ci mu ne l'opposition s'attelle nañu temm doon wennaw say ndax nag la nga xam te jàpp nañ ni jaarul yoon ci élection législative ca nañu koy organiser nag ñoom duñu ko nangu l'observateur yéeni kaay xëy na itamit daal di lañ ki nga xam moom moo di Jérôme Bandiaky secret de vie d'un de l'armée relation ak Macky ak Mimi Touré waaye tamit l'histoire bi nga xam ni moom moo waral ñu daal koy surnommé sniper ak la nga xam moom moo nekk ces deux tentatives pour mi ñu teg loxo jamono jilee si du quotidien nañu nag ki nga xam moom moo di ilimaani ji Ousmane Sonko jël na luy tolloog fanweeri dogal ngir nag lu ñeel ubbi teg école gi jaar yoon noonee la ko xamle mu ne l'état avance ses pions jamono ji la bëgg daal mooy ubbi teg école gi am ci anam bu mucc ayib le grand panel nañu nag lu ñeel wàllum organisation législative anticipe l'opposition s'attelle à alerter ñi nga ñoom ñoo fare ci ku jëkk la nga xamante daal ñoom ànduñu ca te nag ñu ngay wax la nga xam te ni moom la ñu cay naqarlu vox populi dikkaat ci mbir moomee ni ñu l'opposition mais la pression sur le régime ndax ni dem luy tollooke téeméer ak fukk ci ay parti politique ak i mouvement ñoom ñoo daal di àndandoo def benn say daal taxawal mouvement attelang la nga xam bëgg nañu ko nag mooy nguur gi xoolaat nañu fas yéene doxalewaat lii di élection législative yi ci biir réewum Sénégal ngañ forme de pression danañu jubbantiwaat réew mi te itam du kenn koo xamante ni da nga nañu teg pression ba ñu daal deltu gannaaw ci nga xam ne noonu la ñu ko bëgg a doxalee di kàddu ngañ Demba Touré ci Vox Populi journal bi di l'indépendant yéeni mu ne nag élection législative di novembre l'opposition lance appel ñi nga xam te ñoom ñoo di kujjeeg politique gi daal lancé nañu appel ñoom nag la bëgg mooy jàmmaarloog nguurug Sénégal journal mouvement politique lance un bouclier pour la transparence la ñu bëgg mooy lépp loo xam te warees nañ ko def ci élection législative yooya mu ànd ak lu leer nañ noonu la ko journal bii di tribune yéen i xam ne Dakar Time nañu poursuivi pour usurpation de fonction faux et usage de fonds en écriture privée et dénonciation Moustapha Ndiaye devant le procureur moom Moustapha Ndiaye la ñu koy toppee nag mooy maanaam usurpation de fonction waaye tamit ak càcc ak mbind moo xam te ni daal dina koy ni mel na ci l'évidence quotidien ne ñu naka ONAS inondation ci Touba waaye tamit discours polémique ce soir ki accable Cheikh Tidiane Dièye luy toll ko junni ak ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ci ay kër yoo xamante ne ndox mi nangu na ko foofee ci Touba ak luy toll ko fukk ak juróom benn ci ay xàll yoo xamante kenn mënatu fa jaar ndax ndox mu bari soxna may mun a jéey wàcc na naka ca mbedd ma ngir dimbali ñi nga xamante ni fi mu toll ni mbënd mi sonal na leen lool l yéeni kaay ne ñu presse à pouvoir le dégel fi mu ni am na ko ciy xaarandiku quotidien à la place de la nation le septembre niki ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sàttumbar la kuréel gi nga xam moom la ñuy woowee atel fas dem foofee nga xam moom moo di ca place de la nation amal ab dogaanu ñaxtu ngir naka daal ñaalu na nga xam te noonee taxawale élection législative yi ci réewum Sénégal journal bi dikkaat na ci ca na mu gën a yaatoo l'info quotidien dikkaat ci mbir moomu lee transparence des législatives du 17 noonee la ñu fas yéene doxale lii di élection yi lu ñeel wàllum redressement fiscal kër gi nga xamante ni moom moo di Woodside consigné luy tolloog ñeent fukki milliards ci suñuy koppar moom la war a fay fisc bi ci biir réewum Sénégal garantie nga xam te joxe woon na ko nag waa impôt ñoom ñoo koy laaj jamono ji leen nag ndax ñu ngi ko déposé woon ci site banque Sénégal ak fa nga xam te moo di ca caisse de dépôt et de consignation tamit quittance ba nga xam te ni moom moom moo doon firndeel mbir moomule daal dinañ koy joxe tamit waaye mu toll nii daanaka may nañ yi di xaarandiku ñu daal àtte boobu lépp le dossier ni juróom-ñaari fan ci weeru novembre ah, bi ñu dëgmal noonu la ko journal bi di libération yéenekaay daal xam ne waaye tamit journal bi dikkaat ne ci jàpp ki nga xam moom moo di Jérôme Bandiaky mu ne nag ni démb daal nañuy amal ab perquisition ci këram ga nekk ca Mbour noonu la ko journal bi xam ne lii quotidien moom itam dikkaat na ci élection législative yi mu ne ATEL dénonce un putsch électoral ñi nga xam ñoom ñoo di waa nguur gi daanaka dañuy leen jaay doole fuqati li nga xam moom moo nekk ah, seen ko moomeel rawatina nag na nga xam te noonu la ñu ci wàllum élection yi réew mi quotidien ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sàttumbar foofee nga xam moom moo di ca place de la nation le de l'intérieur rencontre les acteurs ce samedi ni ki gi ñu dëgmal la jëwriñ ji lu jëm ci wàllum biir réew mi war dalal ñi nga xam te toogaayu ñaxtu noonu lu ñeel wàlluma muuraay ci biir l'école yi ki nga xam moom moo di ilimaani jëwriñ ji Ousmane Sonko dikkaat na ci mbir moomu la la nga xam ni xam na ko daal mooy bu ñu dàq benn tout tànk ci daara yi ren ji la noonu la ko xam nañu bàyyi ñëpp ñu jàngi ci école yi nga xam fa la ñu ku ci bëgg muuru nga muuru ku ci bëgg solu colin nga xam moom nga bëgg bu méngoog yoon nga daal koy def noonu la ko journal bi xam te le moom moo di col gi le ministre de l'éducation doit soumettre un arrêté qui met en conformité les règlements intérieurs des établissements de la constitution li nga xam ni ñoom ñoo di jëriñ yor lu jëm ci wàllu njàng meeg njàngile mi ci daaru yu tuuti danañu nag daal di jébbale benn pad bataaxal boo xamante mooy wone rek lu ñeel lépp lu jëm ci règlement intérieur yi rawatina lu jëm ci col gi donga ya nga xam te dañ leen daan dàq ci école yi doon jànge nag ñu jàpp ni leen waralu ko woon lu dul col nga xam te dañ ko daan solo loolee nag nguur gi fas ci taxaw temm jamono ji ngir na ku ci nekk nga dem jàngi fa nga ko bëggee te kenn du la dàq noonee la ko journal bi daal di xam ne waaye tamit yor yor quotidien xëy naka daal di xamal ne ne jeunesse patriotique du Sénégal ñoom itamit jàkkaarloo woon nañu ak presse bu Sénégal ngir wax nag ci wàllum politique ki nga xam te moom moo di Ngagne Demba Touré di njiit la moom nag yëkkati na ay kàddu yu mel ni xamee daal di koy wax ki nga xam te ni moom moo di Bougane Gueye Dany mu ne nag Bougane Gueye Dany dafa war a xamal askanu Sénégal koppar yi nga xam amee woon na ko ci biir réewum Sénégal fan la ko jële woon ndax nag moom xëyul woon gontul woon jékkee-jékki rek yor ay milliards naam sax moom yoratul dara dara jamono jële te day gëmloo askanu Sénégal ni ba léegi moom dafa riche dafa bëri xaalis Ngagne Demba Touré nag lu ni mel amatul ndax nag ki nga xam moom moo di Bougane Gueye Dany yoratul dara jamono jële waaye tamit tekkiwul dara ci wàllum politique ndax nag élection municipale yi nga xam amoon na ci moom Bougane Gueye Dany amu ci woon lenn lu dul 675 voix pour cent tey tamit Bougane Gueye Dany jamono jële li nga xam mu ngi koy wax di wax ju jaarul yoon yëpp bëggu